loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal yi yokkoo ramadan ya karim ramadan ya habib ya habib ramadan def laa wax. ci loo ne. alhamdulilah nga xam xam nga li biir njëkk jigéen ñi yow ci weeru ci fiix mi fiix bu ñu. mu leen a bàyyi seen wax yéen nit ñi dañoo war ba heure bi ngeen nekk ci at bi rek di bëre trois ngoon bu leen solo waay ku fekk foofu rek dinaa. Eh. waay waay waay dañoo woor waay ñu nekk fi di koor gi yàlla koor gi yàlla jàpp da ngaa xiif rek. ah sonn naa de ñun néew jigéen dañuy toog fii ci biir nit ñi. ah waaye néew bi waaw sax jërëjëf. ba mu waxee loolu. waaw. Eh, lii mel ni mel ni eh, forage ba sa dëru mar naan. dama ñaay rek booy dama ñaay waaw dama ñaay. wax dëgg yàlla. lu mu defati damaa muñ muñ ba sonn. waaw te yow yaa ma ci mën a dimbali. waaw moom affaire bi réglé wul. la la cinq maam ngànt na am worma. ci koor nga ne la la la dix mu gis mbaax. Ah, te man wax dëgg yàlla bisu tey jii moom bisu tey jii moom. waaw ah. mënumaa fanaanoo euh, simple moom. tey moom mënumaa def dara gratuit moom. tey moom il faut ma ah, ba moom. astafurlah. ba ñu ma ci ba ci fanaan néeg jamaa noir. non déglu rek déglu rek dama lay wax man néeg jamaa noir ak néeg jamaa bu xam man ñoom ñaar ñëpp la laa yemale. yaa dégg njaxat dama bëgg wax ñaari baat gis nga bu fekkente sa soxna sii daba njaay laa ko woowee ndax man moom xam nga taxuñoo kii yow baax daba njaay su fekkente ne dafa gis ay régalam da war faa fanaan ah, sa diine mayu la nga nga nga jóge fa dugg ci beneen néeg dafa dafa dem wala ngay fa fanaan mënta ne waaw bu fekkente ne nag da nga faa bëgg a fanaan yi te ñoom ñaar waxtaan si ba juboo mën naa ne waaw bu ñu ci waxtaan ba juboo soo fanaanee ci beneen néeg ba bu yomal xeemee suñu borom dana la duma ci Ah, yow yow yow yow yaay alaaji may masiya déedéet wala Ablaye Diop Bichri ba tey du ma ñëw wala si gan na mesere ah eh, eh, wala yow yow ko doon ku dëgër boobu nga man la Baye Diop Bal Ndiaye dëgg laa lay wax kay waay loolu ma la wax nag bàyyi xel baax yaa xam fa ngay fanaan ah, en tout cas li wër te wër mooy ah, soo demee ca néeg laal yaay bee ngir jigéen bu la leeree ne am nga bàkkaar mu si jàmm man li nga wax dara anaasu ma léegi nag man li ma arrangé diini ji laa def. ah kon doxal looloo ma arrangé. kon doxal doxal doxal yow naa ngóob. mais loolu dégg yow pare. ma ne kay. suñu bu nee neex bu baaxee dafay xeeñ. programme bu guddi bëccëg lañ koy commencé. ah ah. waaw ah kon doxal. astaghfirullah. waaw yow koo koy tam. tubal jégalul dalul ci yàlla lu mun ci nu baaxul ci tay mengoog safaan ba nanga ko ah waaw. na nga rek la am. na de. waaw tàng na jër de. ak sama nijaay ma mun man la. kan sama nijaay. sa nijaay ngay laaj. biir na génn. ba lay génn fii. mi ngi ci biir néeg mi ngi ci biir. mi ngi may dégg na génn. génnul bu génnul nag. génn na la. eh sama nijaay day génn xanaa bu ngeen di sàppeek ay ba nekk ci biir weeru koor ngeen war ko mën a bàyyi. ñoo tey. ci duba ca gii. ñoo tey yéen amu ni ngeen mel du ngeen ko bàyyi mukk. waaw yéen moom sàcc ay seen jikko la. ba kay man man man man loolu dama jël ñeent tranche am. soo mën woon dama jël ñeent tranche am. yow benn yéen yéen ñaata fayda eh, eh, weeru koor wi eh, ñëpp di jaamu yàlla. yow nga nekk ci biir néeg bi di sàcc ay. génnal fii laa damaa ah, bëgg nga génn. man man waaw kenn rawu la damaa bëgg nga génn. man man man nga xaat ni mën naa aaye. ma ne borom dëj mën naa yóbbu dëjëm. ndaw Samba. aywa yow soxla woo sax kuy doon benn. aywa aywa aywa aywa. yow yow yow kii yow la yow xanaa wóoroo ñoo day da ngaa yow nga sàcc sama ay. da ngaa gis ma lekk yow li ngay def ci biir raw lekk. da ngaa gis ma lekk yow li ngay def lekk ci gën a sedd laa la wax. ñoo bay. jox eh maa ngi. boo xoolee laal may may dem tax laal. taxawal taxawal taxawal. yow yaa ngi laa tegu natt nu ngoog. yow la seen nga gis ko yow mii la yàlla tegu. ah la nga gis ko la sàcc ni ma ni loo moomut sàcc mel ni loo moomul. Oh, waaw waaw moo kay. ndaxte ndaxte sama nit nga aywa waaw léegi fii laa fa naan léegi waa léegi wax moo ah, tax ah yow la. day yomb torop wàcc na. day torop xanaa man xanaa dama moo la mayoon ko mbooloo ñu dem. samay kilifa ñëwee di nga xam ne ñoo la ëpp fu la ëpp la fayda ah, manqué ba mel ni borom kër bu ñu dab di ñand yow la fukk doon séddoo kon doo mat lëj la bay bëgg rek ca lakk waaye du ma wax ba heure jot du xaar sax ndogu léegi laay dem sama kër papa ñu lijjanti ko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 ya Allah loo ci ñaan may loo ci jéggalu mu baal ci la yi tàbbee ci la xewal yi shahru Ramadan ya karim Ramadan ya abi